asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm xëccoo bu tardé moom moo nar am ci diggante ñii di transporteur public bi ak tamit nguurub Sénégal la ko waral aujolekaay bi di su quotidien mag ñu koy xamal di ñu wax ne ginnaaw conseil interministériel bi nga xam ne dañu koo jëloon ci wàllu dem ak dikk bi ak tamit kaaraange ci tali bi ginnaaw l'accident gu métti nga amoon ca gox bi di 6 kilos mu am ci lu tolloog ñeent fukk ak ñaari nit yu ci ñàkk seen bakken ak juróom-ñeent fukk ak juróom yu ci ay gaañu gaañu décision yooyu xam ne kon gouvernement bi daf kaa jëloon mu toll ci ñaar fukk ak ñaar dafa mel ni ne ñii nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu transport public yi ñoom nag ànduñu si tey ànduñu si ëllëg loolu moom moo tax ba ci ab ndaje goo xam ne ñu ngi ko doon amal julikaay bii di ci quotidien mi ngi ñuy xamal ne bañ fa génnee dañoo daal di xamle ne suba incha allah bu min wi jotee dañoo fas ne nag banque seen i yoxoo ñoom ne nañu dem ak dikk bi dina xajam torop ndaxte ànduñu ci mesure yooyu nga xam ne gouvernement bi daal dina koy du Sénégal te kii di Alassane Ndoye euh, jiite ko ñoom ñoo daal di jël décision gi ni mel kon autolikaay bi di Les Échos la mu gis moom mooy ne wàllu dem ak bi di xajam ko dalee suba ci guddi te mën nañu wax sax ne na ndaxte autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne waa AFTU e, i la mu ca gis moom mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu oto yi ñoom de dañoo bëgg a diirante bagg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ndaxte nee nañu àla mukk ñaar fukki mesure ak ñaar yooyu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg bés bi le jour ne boobu dafa fekk ne joriñ gi ñu dénk wàllu dem ak dikk bi di Mansour yi ne duñu nangu nag ñuy yokk paas yi Mansour Faye daal di fësal ab communiqué goo xam ne ma nga cee artu ak tëkku képp koo xam ne nag dawalkatu oto nga nga daal yokk li nga xam ne moom mooy paas yi wanteew ci bii di Sud Quotidien moom tey ji la mu bëgg a xam sax moom mooy lu tax dañu kaa jël ci ab ndaje goo xam ne gouvernement bi moo ko doon amal lu tax ñuy faral di nemmeeku ne ngir ñu topp décision yooyu dafay xaw a métti ci wàll gi ne mel sax loolu moom moo tax ba Sud Quotidien seq waxtaan ak ki fi nekkoon jëwriñ daal di jiite woon tamit bureau organisation et méthode ca présidence de la république moom moomu di Abdou Aziz Tall xam-xamam màcc ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu management rawatina nag ci wàllu secteur public culikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne fësal na ko ngir daal di expliquer lan moo waral yenn ci ay mesures yoo xam ne gouvernement bi bu ko jëlee ñuy am ay jafe-jafe ngir war kaa mën a dëggal moom moom di Abdou di gis ne ba ca njëkk moom mooy ne am na yenn ci ay décision yoo xam ne su fekkente ne da nga jël ginnaaw ab jéya maanaam daal loo xam ne dañu koo def ci wàllu yàkkamti mesures yi ni mel moom la ca ëpp kenn du koy faral di topp loolu moom moo tax ba daal dinay tëral ñaari yoon yoo xam ne bu fa gouvernement ba jaaroon mën na am nag seen mesures yi yëpp daal ñëpp ci ànd daal di koy dëggal moom moomu ko di Abdou Aziz Tall waxtaan ak suñu natango yoo colikaay bii di Sud Quotidien ñu deseendi ak suñu natango yooyu ndaxte ñu ngay ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne kii di euh, Penda mbaw nekkoon fi joriñ gi ñu dénk wàllu aada nekkit professeur d'histoire daal dina koy fësal keroog ba mu nekkee ganub émission bii di objection euh, fii ci biir rajo Sud FM moom moomu di pen mbaw di rafetlu lii nga xam ne moom lay gis fan yëpp maanaam yi nga xam ne ay kàngam lañu ay universitaire di fësal seen kàddu jëmale ko nag euh, ci li nga xam ne moom mooy wàllu troisième candidature Macky Sall moom moomu di Penda Mbow di xamle ne loolu ma ngi koy rafetlu nga xam ne ñoom ñooy universitaires yeeg ñi nga xam ne ay bindkat yu mag lañu ñooñu il faut que ñu daal di am lu ñuy bàyyee ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi te su fekkente ne nag tey jii ku ci nekk ma ngay jël xalimaam di bind jëmale ko ci loo xam ne xew-xew la bu nar a fës fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi moom mënul def lu ko rafetlu Times dañu xamal ne du ñi nga xam ne ñoom ñooy universitaires yi rek de ñoom ñooy fësal seen seen kàddu jëmale ko nag ci wàllu troisième mandat ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall ndaxte culikaay bii di tribune mu nga ñuy xamal ne kii di Abdoulaye Wilane te mu daal di yore kàddu waa parti socialiste moom it daal di ne xamle ne àndool ci ñetteeli mandat kii di Macky Sall Vox Populi ne kon dafa mel ni ne waa parti socialiste rawatina ki yore seen kàddu moom daal di nay lakk jëppeet li nga xam ne de moom mooy troisième mandat bi réew mi quotidien daal di gis kon ne dafa mel ni ne yëngu-yëngal am na ci biir Benno Bokk bokk yaakaar ndaxte seen kàddu yi de ma ngay tàmbale di woroo Walf Quotidien nañu kon nañu jàpp ne ci wàllu élection présidentielle yi ñu dëgmal ci atum 2024 waa parti socialiste ñoom ñu ne Macky daf cee war a mën a nekk candidat ñu jukki ak julikaay bii di enquête ci mbir bu doy waar bu xewee fa li nga xam ne moom mooy ca Turquie te mu dal ci benn doomu réewum Sénégal ab étudiante la boo xam ne euh, fa mu doon liggéeyee ka ko jël ngir mu liggéey ak moom bërëb liggéeykaay ba yéenekaay bii di enquête di ñu xamal ne étudiante boobu sa njëlbeen sax ba mbir ya xewee dañu koo jël ne ko ràpp ci biir kaso wante sa mujjantal ga nag bàyyi nañu ko ñaar ñi def ñaaw teef googu daal di nañu leen teg loxo wante doomu réewum Sénégal boobu dee ñii nga xam ne ñoom ñoo ko jegee la ñu gis moom mooy ne ma nga ca njàqare gu rëy jeexale ko ko tulikaay bii di libération ma ngay ñëwaat ci affaire Sweet Beauty di ñu xamal ne ba léegi moom la ñuy xaar moom mooy décision buy jógee ca doyen des juges ndaxte waa parquet ñoom daal dinañuy fësal kii di procureur la mu bëgg moom mooy na doyen des juges yóbbu ci kanamu yoon ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak tamit Ndeye Khady Ndiaye te it nañ leen yóbbu ci kanamu chambre criminelle lépp lu jublu naka ci audio yi nga xam ne kii di am ci Niass daal dina koy fësal kàddu yi nga xam ne Seydina Oumar Touré wax na ko ci wàllu dossier boobu ak Ndeye Fatou Sène ñu gën ko xam ci turu madame Tall loolu yëpp parquet bi daal dinay gis ne loolu yëpp mënuñu kaa dugal ci biir dossier bi ndaxte amul lenn loo xam ne def ko ci wàllu parti boobu su fekkente ne kii di procureur daal dinay fësal bëgg-bëggam kii di Ousmane Sonko moom ma nga leen di xamal ne amul benn procureur wala boog benn juge boo xam ne nag tey jii moom moo koy tere mu nekk candidat ci atum 2024 lii moo nekkoon mboxtalikat yi li gën a fës biir ëccolikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm mesdames et messieurs bonjour et c'est parti pour un bras de fer entre transporteurs publics de voyageurs du secteur privé et le gouvernement nos confrères de Sud Quotidien qui nous en parlent nous Chine vers une paralysie et les transporteurs en ont décidé ainsi au sortir d'une rencontre qu'ils ont tenue ce samedi. Et ces transporteurs, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, ont décidé qu'à compter de demain, mardi janvier à minuit, ils vont décréter une grève illimitée. L'annonce a été faite par le secrétaire général du syndicat des travailleurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS à la Sandoy. Il proteste ainsi contre les 22 mesures décidées à l'origine de plus d'une quarantaine de morts et de plusieurs dizaines de blessés, dont certains grièvement. Donc retenons avec nos confrères du journal Les Échos qu'il y a une crise dans le secteur des transports et l'on s'achemine vers une paralysie totale du système. Nos confrères de l'info d'ajouter que les transporteurs défient l'État avec cette grève générale pour dire non contre ces mesures, mais aussi la hausse du carburant. Et justement, nos prise par l'État. Les transporteurs sont étranglés par cette hausse du carburant. C'est pourquoi ils ont décrété une grève illimitée à partir de ce mardi, en plus de cette hausse des tarifs chez les bus Tata à partir de ce lundi. Cependant, nos confrères du journal Besbi Le Jour nous font savoir que le ministre Mansour Faye est contre toute hausse unilatérale qui serait d'ailleurs une infraction. Une réunion d'urgence est convoquée aujourd'hui aux études, jour. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères aimeraient bien savoir pourquoi il y a toujours des difficultés du côté de l'État euh, pour faire appliquer les décisions prises, dont celle euh, du Conseil interministériel sur la sécurité routière. C'est à cet effet que nos confrères de Sud Quotidien ont interpellé l'ancien ministre et ancien directeur général du Bureau Organisation et Méthode de la Présidence de la République, Abdou Aziz Tall, dont la compétence est reconnue dans le management, en particulier au niveau du interview qu'il a accordée à nos confrères, il explique avec pédagogie pourquoi l'État peine quelquefois à mettre en œuvre certaines de ses décisions en s'appuyant sur la théorie managériale du processus décisionnel. Pour Abdou Aziz Tall, tous ces constats d'échec ou de dysfonctionnement s'expliquent généralement par la non-observation stricte du processus décisionnel rationnel tel qu'il est en vigueur en matière de sciences administratives. En effet, c'est un principe managérial établi que toute décision prise dans un contexte d'émotion ou de précipitation a de fortes chances de se heurter à des difficultés de mise en œuvre. Et maintenant à la question de savoir quels sont les autres outils à considérer dans un processus décisionnel en dehors de l'identification du vrai problème, Abdou les classe en deux catégories. Et toujours, selon lui, il est généralement admis que la démarche qui offre le plus de succès est celle consistant à faire appel à une large collégialité, la participation et qui est les méthodes et de tous les outils de prise de décision. Et nous restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui ont recueilli les propos de l'ancienne ministre de la Culture et professeure d'histoire, Penda Mbow, qui était l'invitée de l'émission Objection de la radio Sud FM. Elle s'est félicitée de la prise de position de plus en plus affirmée des sommités sur la situation politique actuelle du pays minée par le débat sur la troisième candidature de l'actuel chef de l'État. Penda que ces publications attestent que tout le monde est qu'il faut absolument laisser un legs positif à la jeunesse. Pour Pernambo, notre pays est à la croisée des chemins et nous sommes dans une période où on se pose beaucoup de questions aussi. Et quel va être l'avenir de notre démocratie? Quelle sera l'implication de la jeunesse sénégalaise dans la construction de cette démocratie et le fait que tout le monde se pose des questions, que tout le monde réagisse de façon positive dit-elle, parce qu'il y a une sorte d'anticipation par rapport à quelque chose qu'on pourra vivre euh, d'ici la prochaine élection présidentielle. Et justement, dans le journal Dakar Times, nos confrères nous indiquent par rapport à la troisième candidature du président Macky les universitaires s'affrontent. Il n'y a pas que les universitaires, écrivent nos confrères du journal Tribune, car Abdoulaye Wilane, lui aussi, s'oppose au troisième mandat de Macky. Cette la une du journal Vox Populi. Selon nos confrères, le porte-parole du Parti socialiste brûle le troisième mandat. Nos confrères de Réumi constatent donc qu'il y a un vent de rébellion au sein de Benno Bokuyakar. Et pour Walf Quotidien, il est clair que pour la présidentielle de 2024, le Parti socialiste a conjugué Macky Sall au passé. Et l'on parle avec nos confrères du journal Enquête de cette sordide affaire de cette jeune étudiante sénégalaise violée en Turquie. Selon un employeur sont placés actuellement en garde à vue et nos confrères nous expliquent comment la jeune étudiante a échappé à ses bourreaux. Arrêtée puis relâchée, elle est dans un état de détresse selon ses proches. Terminons par l'affaire Suite Botti dans le journal Libération. Nos confrères nous révèlent des secrets du réquisitoire du parquet. Le procureur de la République a demandé au doyen des juges une mise en accusation de Ousmane Sonko et de Ndeye la Chambre chambre criminelle. Nos confrères reviennent également sur ces audios versés par M. Signas, témoignage de Seydina Oumar Touré, Ndefa Toussaine, Madame Tal. Le parquet ignore royalement tout et affirme qu'ils n'ont aucun rapport avec les faits visés. Et maintenant, la décision finale du doyen des juges est attendue. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.